alhamdulilahi rabbil aalamiin waliyi saalihiin wala cudwaana illa ala alzaalimiin wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursaliin nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin amma baad mbokk jullit yi war nañu bàyyi xel fu ñu toll ne dafa bokk ci doxalinu yàlla yi nga xam ne subhaanahu wa taala du soppeeku mukk ci jaamam ñi ci mbindeefam ñi mu nekk coobarey borom bi subhaanahu wa taala kenn du ko soppi mooy ne moom yàlla moo tànn ci nit ñi ay yonent yabal leen jox leen dëgg ngir ñu woo ci nit ñi ngir ñu teete ci nit ñi yonent bu yàlla mësa yebal bu nekk am na noon boo xam ne taxaw na ci sa kanam ci ay noon yoo xam ne ay jinne la ñuy doon wala ay nit di dollente ay xalaat ak ay pexe ngir gàllankoor yonent boobu ci woote boobu muy woote di jëmale ci dëgg ci niñ ko mën a gàllankooree rek ci di rafetal ay wax yoo xamante ni lépp ci neen la tegu dara nekku ci dëgg di ca jañax nit ñi ak di leen ci jëmale ngir tàggalee leen ci doxee ci seen diggante ci loola seen diggante ak li nga xam ne yonent yooyu indi nañ ko ci njub loolu li ci gën a ràññeeku mooy suñu yonent Muhammad ibn Abdullahi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla yabalee rek ca tàmbali ba la ay nit jóg ne lii muy wax du fi jibee kaw lu ñu mës a xam rek ci ay pexe yoo xam ne mën nañ koo nas wala lu ñu mën a def ci kàttan ba dox digganteem ak jottali kàddu yàlla def nañ ko bi mu jógee Màkka dem Madina itam noon bi dafa soppeeku waaye ba léegi mi ngi fi xëy na jël na beneen sol na beneen yére bu bokkul ak nam meloon waaye mi ngi fi ba léegi di gàllankoor wooteem boobu loolu doxalinu yàlla la subhaanahu wa taala boo xam naka jekk daf fee nekk moo tax bi fi yonent yi jóge itam loola muy doxalin boobu dafay des ba léegi ci ñi nga xam ne ñoo donn xam-xamu yonent yooyu ndax li yonent bi alayhi salatu wasalam waxoon mooy al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñooy donn yonent yi mooy ñooy donn dalañ leen di donn ci xam-xam bi nga xam ne moom la leen yàlla joxoon bu buñ donnoo xam-xam bi donn tamit responsabilité bi ndax xam dañ koy donn pas rek yemale ko ci sa bopp waaye pour jëfe ko ak jottale ko ak jàngale ko loolu naka jekk daf fee nekk ne yàlla subhanahu waxoon na ni yonent yépp yàlla euh, defoon na ci ci ci coobareem moom yàlla subhanahu wa taala ne yonent bu ci nekk am nga noon yoo xamante ne ay nooni jinne ki nooni nit lañ mooy ci lu ñuy gis ak lu ñu dul gis ay noon yoo xam ni dañuy daje di sottante ay xalaat ak di dimbalante ngir gàllankoor yonent boobu te léeg-léeg niñ koy defee mooy imma mu nekk ci lu ñuy lor loraange bu ñuy jël di ko jëmale ci moom moo xam ci wàllu kàttanu loxo la wala ci wax ci làmmiñ wala xërtal bu ñuy xërtal nit ñi ci di leen wax yu tax ñuy dox ñuy bañ a wuyu yonent boobu ci wooteem maanaam di yàq xelu nit ñi ci li nga xam ne yonent bi mi ngi koy wax mooy li yàlla subhaanahu wa taala wax ne yuuxi baaduhum ila baadin zuxrufal qawli gururan dañuy fexelante kenn ku nekk di jàppale sa moroom ci di jéem a fent ay wax yoo xam ne ak ay xalaat yoo xam ne buñ ko tasee ci nit ñi nit ñi duñu mën a ràññeetle ne wax ji waxi neen la joo xam ne dañ koo cuub pentiir ko mu rafet ci kaw waaye dëgg lalu ko ndax ñi nga xam ne seeni xel soriwul seenum njàng soriwul léeg-léeg wax yooyu da leen di gaaw a mën a nax léegi nag loolu nag la ñuy gàllankoore wala bokk na ci stratégie yi ñuy gàllankoore woote wootekat bi nga xam ne moo fi nekk ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàng xam-xam bi mu fi bàyyi doon ko am lu mu ca yor di ko euh, tasaare ci nit ñi ak di ci woote xattaa ci ginnaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam di gàllankoor ak a jaamaarloog ñi nga xam ne ñoom ñoo donn xam-xam boobu fi yonente bi alayhi salaatu bàyyi ak cër boobu nga xam ne mooy cëru di ci woote ak di ko jamono ju nekk noonu boobu daf fiy nekk xëy na ay pexe mën na wute selon temps yi muy selon jamono ji ak selon dëkk bi ak selon seeni moyens ak selon niveau bi nga xam ni fa la wootewu waa jooja toll wala ñooña toll soo loolu rek moom mooy tax muy soppeeku waaye pexe yeeg Euh, jéem yéeg yooyu moom du mus di di ñàkk faw daf fiy nekk ndax loolu doxalinu borom bi subhaanahu wa taala la ñooña nga xam ne ñoom ñoo doon xam-xam boobu fi yonente bi alayhi salatu bàyyi woon daf leen waxoon ne leen balligu anni wala aaya ñooñu dañoo xam loola tax ñu jug ci jëfe santaane boobu ndigal loolu mooy xam-xam booba ñu xam te mu nekk ci ndoon na yonente bi alayhi salatu wasalam dañoo jug di ko jottale ci nit di ko tasaare ci nit ñi seen kémtalaay kàttan mën nga wax ne sax nga ciy gis kenn ci ñoom dundam lépp amoo ci leneen loo ko mën a jëmale lu dul loolu lépp loo ko gis muy def rek daanaka dafay am rapport ak objectif boobu jubluwaay boobu nga xam ni dafa consacré dundam ak léppam ci mission boobu yonentu bi alayhi salatu wasalam tamit doon wax saxaaba yi naan leen ñi teewee ci yéen samay waxtaan teewee njàng mi dégg li ma wax bu ñu fi jógee nañ dem jottali ko ñu ko fekkewul woon ba léegi itam yow mi teewee waxu yonentu bi alayhi salatu wasalam ci téere yi teewewuloo ko ci jëmmam waaye teewe nga ko ca bërëb koy jàngee ba xam ko la nga ci xam itam na nga ko jottali ña ko teewewul mooy ña nga xamante ne wax jooja jotu leen àggul ci ñoom ñooñu kon loola yonent bi alayhi salatu wasallam santaane woon dañuy jug di taxaw ci loolu di ko def bu ko defee nag ay nit jug taxaw seen kanam bëgg leen gàllankoor ndax lu mel noon noonu tas du nekk seen intérêt dafay menacer seeni intérêt loolu nag ñim menacer dañu bari kon ku taxaw ci mission boobu rek xamal ni say noon bari nañ moo xam xam nga leen ñëpp wala xamoo leen ñëpp ndax ñi ngay déranger ak ñi ngay menacer seeni intérêt dañuy nekk ñu bari kon défi bu rëy la loolu buñ ne nammeelu yàlla la ba yàlla di ko wax ci alquran ne yonent bu nekk il fallait que mu am kuy taxaw sa kanam di la gàllankoor fokk nit ki posé question kon lan moo war a nekk jubluwaay yi jubluwaay màgg lay lay la am ndax léeg-léeg nit ki boo ko joxee mission mu yomb trop ci moom amul benn defi bu taxaw ci kanamam day waral ak càggante day tax ni mu ci waroon góor góorloo dëgg-dëgg pour am cer jéem a ut réussite dafay xaw a des mais mission bi léeg-léeg lu mu gën a ànd ak ay défi ak gàllankoor qu'au fond de lui-même ay capacité yoo xam dina ko euh, dimbali ginnaaw ndimbalu yàlla ngir mu gën a mën a jaamaarloog gàllankoor yooyu ba jottali li nga xamante ni moom la ko yàlla sant ne na ko jottali kon gàllankoor yi léeg-léeg day tax a gën a góorgóorlu dina timit rek la ay problème yu bari ndax gàllankoor yi nattu la bu yàlla di nattu jaam ñi ndax ñi nga xam ne ñépp ñoom ñoo bëgg a askanale seen bopp jagleel seen bopp ñi doon xam-xame yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaawam jottalil ko la nga xam ne moom nga ko xamal ci sunnaam jàngale la ko ko ak lu mu néew néew selon sa niveau xëy na duñ ne wax ne niveau bi néew na nga jël ngay jëm euh, di jàngale ak a jottali loo xamante ni weesu na sa dégg-dégg ak sa xam-xam waaye kenn ku ci nekk selon sa responsabilité léegi bu fekkente ni gàllankoor yooyu mi ngi fi ak jafe-jafe yooyu mi ngi fi loolu déjà rek nattu la bu tax taxawaay boobu dootul nekk lu yomb dootul nekk loo xam ne ku jug rek daldi ne moom da koy def foog mu laaj tuuti ay sacrifice laaj jaamaarloog ay menaces ak ay mbir yu bëri yoo xam daf lay menacer di menacer intérêt personnel bu fekkee nag euh, jubluwaay boobu ak taxawaay boobu moo gën a fort ci yow intérêt yeeg intérêt personnel yi bu boobaa doo sax xool menace bi da ngay continuer ci loolu kon foog mu nekk benn natt boo xam ni dafay tax nit ñi ràññeeku ci kenn ku nekk lan moo ciy sa taxawaay dëgg-dëgg ci wootewu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak tasaare njàngaleem ci société yi ñuy dund leneen li ci nekkaat tamit mooy ne dafay ràññeetle bu baax a baax kuréel yi ba ñu xam kenn ku nekk fu mu féete ndax bu yàlla subhaanahu wa taala defee ne am na ñu jug di woote ci dëgg ñeneen jug di leen gàllankoor rek léegi kenn ku nekk fi nga féete dañ koy xam ndax ki ngay gàllankoor wala nga koy saaga wala nga koy menacer wala nga koy jéem a bunu xatal di ko sonal lan mooy sabab bi ñu ne sabab bi du leen lu dul li muy nekk ci société bi naan qaala allah qaala rasulullah di jottali kàddu yàlla di jottali kàddu yonent bi alayhi salatu wasallam te jubluwu ci leneen lu dul jubbanti nit ñi teg leen ci njub gisuñu ko muy exploité nit ñi di leen jëriñoo waaye njub rek lay séntu ci nit ñi léppam la ko jaral nag bu nit jógee wala ay nit jug loola metti leen bañ ciy dox ak di ci wax ngir gàllankoor ko loolu dafay daal di leeralal nit ñi ñi seen féetewaay mu leer ne bokkuñu ci dëgg kon dëgg taxu leen a jug mu bokkaat ci itam ba léegi day tax dëgg gën a leer day tax dëgg gën a feeñ ndax dëgg dafa am force ci ay argument ak ci leeraay bu boo xam ne bu nit di jóg di ko jéem a neenal ci loo xamante ni ay waxi kasaw kasaw la ak ay baatil la day gën a may dëgg doole da koy gën a may kàttan day tax ñooñu dëgg gën a am euh, mën naa wax occasion pour gën a mën a leeral dëgg ji ñu nekk ndax bu leen nit commencé di critiquer ka dingat nga dégg leen seen la ñuy critiquer ca la ñuy def ak la ñu gëm ñu koy leeral ci ay tegtal yu leer yu jóge ci alxuraan yàlla ji ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalam mën na sax gën a leer ci bopp ki nga xam ne loola comprendre wu ko woon noonu lan moo ko waral leeral boobu yépp lu ko indi mooy am na ku jug di jéem a gàllankoor dëgg loolu puus ña nekk ci dëgg ñu tontu ko tontu boo xam dafa sax gën a leeral dëgg bañ nekkoon kon gàllankoor yooyu tamit léeg-léeg dafay tax mbir gën a leer ak tamit léeg-léeg ak ciiwal mi ngi ci ndax wootekat dina fi nekk di woote ñu bari xëy na xamuñu ko woon yonente bi alayhi salatu wasallam loolu daan nañ ko ko def nit daan na ñëw màkk xamul ne sax mi ngi fa waaye noonam yi koy gàllankoor ñooy dajeg kooka ne ko am na nag ku fi nekk ci dëkk bi koo xam ne na nga fexe ba bul ko déglu ñoom ñoo koy publicité defal ko propagande fekk nañ ko bëggoon gàllankoor bu ko defee kooku ne waaw kooku moom mooy kan a ah, xaaral ma jaar fa déglu ba xam bu fa jaaree déglu far yàlla def mu tuub kon léeg-léeg ñoom ñoo lay defal propagande te sax duñ ko yëg dem ba di tudd sa tur ak sa daawa sa woote ci ay milliers yoo xam ni ak ay dëkk yoo xam ne nit ñi xamuñu la fa woon ci kaw nii naam am na gàllankoor gu ci nekk ak yàqute yu ci am mais léeg-léeg nekkaat loo xam ne lu contre productif la ci ñoom maanaam jur safaanu lañu bëggoon jur safaanu lañu bëggoon loolu moo tax bu fekkente ni seetlu nañ jubluwaay yooyu yépp ak yeneen yu ca nekk yoo xam ne mi ngi ci jaamaarloo boobu ñaari kuréel yi di jaamaarloo kuréelu dëgg ak kuréel gi nga xam ne mooy gàllankoor dëgg dafa war a tax ñi nekk ci dëgg di ñaan yàlla mu saxal leen ci dëgg googu ñu koy jàppale di jàppale dëgg ngir mu féete kaw leneen lu mën a doon dañoo war a nekk ñu vigilant bàyyi seen xel bu baax ci seen nekkin ba ñoom kenn ku nekk ci ñi nekk ci dëgg boobu bañ a nekk sabab boo xam ni yaay néewal doole dëgg ba ka ko doon xeex mën a am ci moom yoon mën a am ci moom wàll mooy kon bàyyi xel nekkin bi nga xam ne moom la nit ki di nekk ci dëgg ak ni muy liggéeyalee dëgg mu teg ko ci yoon ba mañ bañ a moom ci boppam moom ci boppam muy nekk point de faiblesse ci dëgg boobu nga xamante ni mu ngi ci loolu nag li nga xamante ni moom moo ci yóbbu mooy ubbi ubbi ubbi seen i bët bu baax ci xool lan mooy bunt yi nga xam ne ay porox ndollu la yu nekk ci seen biir yoo xamante ne buñ ci bàyyiwul xel yàqkat bi bëgg a yàq mën na cee jaare ba déstabiliser leen yàq seen woote loolu boo ko seetloo di nga gis ne bokk na ca moytu moytandiku gu ñu war di moytandiku ñi nekk ci dëgg te bokk ko te yàlla sant leen ñoom ñëpp ñu jàpp ci dëgg tegu ci dëgg ñu moytandiku xiiroo ak ŋaayoo ak ay jàppante yoo xam ne am ci seen biir loolu lu mu gën a bari di gën a néewal doole wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba riixukum la yàlla waxoon jàppante be xiiroog ngaayo bi lu muy indi mooy xàjjali ko bu ko defee néew doole daal di am bu néew doole amee déstabiliser la dafay yomb kon yi nga xam ne ñoo koy sabab di ko di ko nekk ay source di sabab ci nit ñi di waral ci ñuy góorlu ci dëgg ñuy faral di am ay xiiroo ki ngaayo ki wute yàlla soriloo na leen ko ca tàmbali ba dañ ko war a jéem a fexe soril seen bopp te bañ di toppat léeg-léeg ay problème ak ay masail yoo xam da nga ciy nekk di xóotal ba muy ay problème ak ay xàjjalikoo ci biir ñoo xam dañ nekk ci dëgg Eh, loolu mënoon nga caa bañ a dugg mënoon nga caa bañ a sori mu bokkat ci yi nga xamante ni ba léegi daf lay mën da leen di mën di déstabiliser te nekk loo xam ne bu nekkee ci seen biir ba fës mën naa nekk lu leen seen noon di jaare mooy xam-xam bu néew bu fekkee njàng mi taxu ko am doole formation bi amul doole jàng dëgg ba xam ko ba mu leer nañ sa bopp jàng lu dul dëgg tamit ba xam ko mën koo ràññatle ak dëgg loolu mën mënta ñàkk xam-xam boobu bu fekkente ni néew na rek soo moytuwul ni nga bëggoon a dëgëralee dëgg dangay ngay far wëlbatiku di ko néewal doole ndax dangaa ngaa néew kàttan ci dëgg bi nga yor nga mën koo layal mën koo leeral léeg-léeg nga dégg nit dem ci ay débat toog fa di wax ñu ko fay néewal doole pas parce la mu bëggoon a leeral loola masala boobu dafa amul ay tegtal yu wér am na ay tegtal waaye moom néew xam-xamam ci mën a argumenter li mu bëgg a waxal léeg-léeg mooy jox dëgg position de faiblesse la nga xam ne moo safaanoog dëgg mel ne loolu moom mooy dëgg te léeg-léeg dafa mel ne ñiy organiser débat loolu dañ koy xaw a euh, timit def muy stratégie la boo xam dañ koy def bu ñu contrer ay nit bëgg leen a booleeg ñeneen ñu wax ak ñoom dañuy seet ku leen neex ñu indi ko fa ne kii moo leen représenté te fekk na kooku amul benn kii taxawaay ak tolluwaay pour war a mën a représenté kuréel yooyu noonu waaye bëgg leen neewal doole moo tax mu mbokkaat ci itam ba léegi yi nga xamante ni bu fesee ci mbooloo mi ne dañoo bëgg a góorgóorlu ci dëgg te xam ne am nañu ay noon yu leen wër ak yu taxaw ci seen kanam bëgg leen gàllankoor ñu war ci di bàyyi xel te bu ñu ci bàyyiwul xel ba mu nekk loo xam ne luy fës ci seen biir la mën leen gàllankoor wala may doole doole seen noon ci seen kaw mooy ñàkk tënku ci ay teggin mooy lu baax li nga nekk dëgg bi nga nekk des cee war a nekk ci ay teggin yu méngoog moom yuy tax mu mën laa gën a jariñ nga mën cee jariñ keneen mais bu dee da ngay woote ne loolu da nga caa nekk te teggin yi mu laaj nit ki tënkuwul ci loolu soo moytul dafay yàq te fekk ni dafa bëggoon defar kon defar nekkin bi ba mu nekk lu rafet dina tax noon bi gën a ñàkk ay pexe ci yow waaye lu lu nekkin bi di gën a ñaaw gën a ñàkk teggi nii gën a xaw a néew rek ñu gën koo mën a exploiter pour yàq sa image yàq image yu dëgg mooy comme ni ñenn ñi bëgg a yàq lislaam di def rek ci buñ gisee yenn jullit yi di def yenn jëfin yu ñaaw yi ñu jël loolu bëgg koo daal di koy taqal lislaam alors que lislaam ak lañ ñay askanewoo ci lislaam di def bokk ñaari mbir yu bokkul la mu bokkaat ci itam ba léegi ci bunt yooyu nga xam ne ba léegi mën na ubbil noon bi buntu te ñu war caa bàyyi xel mooy ak càggante ak ñàkk a ci pexe yi nga xam ne noon bi daf koy def ngir jéem a neewal doole dëgg ndax léeg-léeg yenn yi ci ay provocation lay jaar provocation yoo xam dañ koy provoquer mbooloo mi di xool ba xam naka la ñuy réagir pour nga topp sa mer ba def loo warul def rek ñu daal di jaaree ci yàqal la lu bari yàqal la lu bari léeg-léeg dañuy jëm la booleeg état bi léeg-léeg ñu jëm la yàq sa der ak société bi parce que xam nañu sa daawa bu ko nit ñi dégloo ak xel moo xam ne xel mu mucc ayib la ñu ci ëpp ci ñoom dinañ ko wuyu si ndax waxi yàlla la wax yonente ba alayhi salatu wasallam lu leer la waaye dañu lay jëkk ci ñoom yàq sa der yàq sa image ci ñoom léegi nag bu fekkente ni nit ki dafay wuyu seeni provocation provocation yi boo ko wuyoo soo moytul li nga def loo warta def dañ lay dóor benn yoon nga dóor ñaari yoon ndax sa mer nga topp léegi ñu exploité lool liñ naan nit ñi xamuñu ku ñu tooñ ku fayu la xam moo tax ànd ak sang-froid bi ànd ak xikma sagesse ba lu provocation yi rëy rëy rëy rëy nit ki dal jàngat étudier xool moom ci boppam naka la mën a contre attaquer def yeneen stratégie yoo xam ni dina sàmm daawa bi nga xam ne mooy woote dëgg ba kenn du ko yàq kenn du ko yàpp kenn du ko ñàkkal fayda waaye tamit image woote boobu dina fexe ba du ca yàqoo dina nekk lu rafet maanaam am équilibre boobu danga koy fekk ci personnage wu personnalité wu yonente bi alayhi salatu wasalaam boo jàngee daawam moom yonente bi alayhi salatu wasalaam di nga gis façon provocation bu ne ay noonam provoqué nañ mais mosuñu ko pousse ci provocation yooyu ba def loo ko lu marul def kon loolu force la loolu force la te itam ñi ñuy jiite ci daawa bi di nekk ay kilifa ñu leen di jox yenn euh, cër yi gis naa ne chance la bu ñu amee ñu ay nit yoo xam ne am nañ maitrise bu mel noonu nga xamante ni bu mbooloo mi di bëgg a tabaka dal ndax ay boo delloo ci ki nga xam ne moom sa kàddu ci loxoom la ko yàlla teg mu mën la dalal defal la ba sa xel delsiwaat mu wax la li ñu war a def loolu noonu euh, mën naa wax ne xéewal gu rëy la yàlla nañ ko yàlla subhaanahu wa taala defal moom borom bi subhaanahu wa taala euh, doon na euh, di bàyyiloo xel jullit ñi bu baax a baax ci bu ay fitna amee ay mbir am ñu war caa jël ay taxawaay ne balaa ñu caa def leen dañ ko war a delloo ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ginnaaw yonente bi alayhi salatu wasallam ñu delloo ko ci borom xam-xam yi wa ida jaahum amru min al amni aw al xawfi adaau bihi walaw radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladina yastanbituunahu minhum beneen bi ci desaat ci point yooyu nga xam ni buntu yooyu nga xam ne noon bi mën na ci jaar pour néewal doole dëgg ak ñi nekk ci dëgg bokk na ci e, gaaw a yuqet gaaw a wàcc say principe parce que xëy na noon bi cërëf cërëfam ak ay yuuxoom ak coowam tiital na la léeg-léeg dañuy coow rek fi ñuy àggale seen bopp ci biti ci ay wax duñu fa àgg dëgg-dëgg ci mën-mën ak ci kàttan léeg-léeg sax seen xol yi day fees dell ak ragal gu ñuy ragal ñi nekk ci dëgg mooy li yàlla yonente bi alayhi salatu wasallam waxoon ne nu nusirtu bi ru'bi masirata shahr yàlla defal na ko euh, ndimbal ci ne buy daje akub noonam distance bi dox seen diggante ñoom ñaar ñu war a daje distance boobu mi ngi ko war a dox weer pour dajeek moom diggante boobu yépp noon bi mi ngi tiit di ragal bu naree dara ak jullit ni jullit boo xamante ne dafa am fulla ci boppam di jàng alxuraan yàlla ji ak sunna yonente bi alayhi salaam dëgg di ko jëfe ci boppam neexul ñeme ndax li ci ëpp dañ koy tooñ te kuy tooñ du ra ñeme day ragal ba tax na léeg-léeg seen cërëf cërëf ji ak mbooloo mu bari mi ñuy woow ak ak yi ñuy def noonu yépp pour tiitalee ko la rek pour impressionner la mais yooyu warul tax nit ki di yox yoxi gaaw a yox yoxi bu ñu yëkkatee rek yu mel noonu nga commencé bàyyi say principe continuer nekk ci li nga war a nekk def li nga war a def bañ a tooñ bañ a ay provocation mais tamit nekk ku dëgër ci say principe xam ne lii dëgg la yoo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moom moo ko wàcce ñu ne nañ ci nekk dañ ciy nekk di ci woote incha allah ba keroog ñu dajeeg suñu borom loolu mënul ñàkk bu fekkee euh, gaaw a am ay euh, njiit yoo xamante ni bii bu Masamba wala Mademba discours bi neexu ko alxuraan yàlla ji wax ak sunna yonent bi alayhi neexu ko rek ñu commencé naan ah déet def leen dànk bu leen fi waxati ci tawxiid bu leen fi waxati ci di leeral yenn bidaa yi ak yooyu ndax yooyu bu ngeen ko defee day naqare diw wala diw léegi bu yàggee ban dëgg ban alxuraan ak sunna ngay leeral nit ñi lan ngay jàngal nit ñi kon li am solo mooy wax dëgg ci mu te mu tegu ci ci teggin ak ci yar ba ku ku bëgg a jariñu ci dëgg bu ko déggee xam ne wax ji dëgg la wares na ko mën a jariñu ndax bëgg wax dëgg tamit du tax nga wax ko ci façon bu ñàkk teggin waaye na wax ji teggine na wax ji nekk lu leer lu neex a dégg léegi nag mu des ñam yi metteeg ñam dul neex moom loolu mënul ñàkk loolu mënul ñàkk yàlla subhaanahu wa taala xamle woon na ne dina nattu jullit ñi nattu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm nattu leen ci seeni alal nattu leen ci seeni jëmm te yitam dina am yeneen ay xeetu natt yoo xamante ni ci nit ñi lay jóge mooy li ñuy dégg ci ñi nga xam ne ñoom ñoo noonoo la ñu nekk ñu leen koy wax ci ay ñaawteef moo tax yàlla ne wala tasmaunna min alladina utul kitaaba min qablikum wa min alladina ashraku adan kasiran mu ne yéen di ngeen dégg ay loraange yu rëy yoo xam dina jóge ca ña nga xam ne ñoom la yàlla joxoon téere bi ñu jiitu leen fi mu yahudi ak nasaraan yi ak ñi nga xamante ni seen diine bokkaale da saa jaxasoo bokkaale dañoo nekk ci bokkaale mu ne kuréel yooyu dinañ di jël ay wax yu ñaawa ñaawa ñaaw di leen ci lor waaye nag li am solo men ngeen continuer di tënku ci leen seen borom sant ngeen ne ca boole ko ak di muñ loolu bu ngeen ko defee la ñuy def du leen wàññi dara kon ñaari critères yu am solo ngi noonu moom mi ngi fi mooy ñi nekk ci dëgg di ci góorgóorlu faw wax ju ñaaw ji ak accusation yi ak saaga yi ak xas yi fokk mu am ndax xam nañu bu ñu duggee ak ñoom ci waxtaanee dëgg xool fan la dëgg féete rek teg ko ci xam-xam bu wér ñoom duñ ca génn ñoom ñoo cay perte léegi nag loolu dañ koy moytu la ñuy dese mooy lan mooy ay saaga ak ay xasteeg ay tuumalaate ci loolu la ñuy des waaye li fekk nit ki muy continuer nekk ci li mu war a nekk di muñ yàlla subhaanahu wa taala dina mottali dëggam ba dëgg fa mu war àgg mu àgg fa yàlla tamit subxanahu wa taala xamaloon nañu ne du ñu mën a am réussite am texe ci lu baax li ñuy nekk di ci góor kër ci kër li fekk nattuwuñu comme na mu nattoo woon ña ñu ci jiitu kon bu ci nit ki nekkee tam war na séntu ne nattu yooyu dina dina ko dina ko dab ndax loolu doxalinu yàlla subxanahu wa taala la lu mu xamal tamit ñi nga xam ne ñoo soobu ci yoonam bi la. xamal na leen ne la yoonam bi am na ay nattu yum ci nattul jaamam ci soobu di ko nattul boppam ci ay jafe-jafe leen di gàllankoor ñu dellu ginnaaw ci seen diine dañuy continuer di jàpp ci seen diine di ko jëfe ak itam nañ ko war a jàppalee ñu jàppalee ko noonu waaye liñ koy tëjee mooy li yàlla subhanahu wa taala wax jaamam ñi ko gëm ne leen bu ngeen taxawee ci dimbali yàlla yàlla dina leen dimbali te itam dina dëgëral seen taxawaay te loolu moom mooy li war a nekk objectif kenn ku nekk ci koo xam ne rek dangay soobu ci siraatul mustaqim di jëfe diine mooy nga xam li yàlla bëgg nga taxawee ko ci diine nga taxawee ko ci diine ci jëfe ko ci jàng ko tasaare ko jàppale ko di digle lu baax di tere bon di woote di jëmale ci yiw ak di xeex lépp loo xam ne lu safaanoo ak lu baax la loolu bu fekkente ni jullit ñi yar nañ ci seen bopp yar ci seeni seeni ndaw yar ci génération yi ñëw te yenn provocation yu bari yu ñuy dégg ak mbir yu am jeunes yi mu leen di tànte ñuy xëccu di dem ci yooyu ñu bàyyi ko xam ne ay étape la yoo xamante ni buñ àggaguñ fa benn ñaareel bi mooy ay doxalin la yoo xamante ni muccul ayib li muy yàq moo ëpp lu muy defar mais bañ a yàkkamti résultat yi continuer ci principe boobu principe bu yar bi jëfe ak jàngale bi bu ñu continuer ci loolu amul société bu loolu mënul defar amul société bu loolu mënul defar ay nit bu ñu nekkee ay mbooloo dajale seeni kàttan dajale seeni xalaat nekk ci loolu rek te bañ koo bàyyi day yàgg day yàgg mais dina mujj nit ñi wuyu si leen fekk si leen ci loolu kon loolu képp ku ci nekk ndimbalu yàlla dina la ci fekk waaye nag doomu aadama yi dañuy yàkkamti non seulement résultat yi dañ koy yàkkamti mais des fois nañ koy évaluer di xool ba xam ab def nañ ay wala defuñu résultat des fois xooleen bi du mucc ayib dañ ciy jum woote dëgg mi ngi tas woote dëgg mi ngi am doole nit ñi ngi koy nangu te incha allah ci kanam la jëm mais bu kenn yàkkamteem wala ñàkk xam-xamam bu xóot wala wuyu ay provocation ndax manque bu mu manqué euh, dal nekkul ci moom bu mu tax muy def lenn luy affaiblir dëgg ba tax ñi ko bëgg a yàq di di ci di ci profito di ko exploiter di yàq woote dëgg ak di ko gàllankoor yàlla nañu yàlla subhaanahu wa saxal ci dëgg yàlla nañu yàlla subhaanahu wa sàmm sàmmal ñu suñu rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina adab annar rabbana la tuzig qulubana bacda id hadaytana wa hab lana min ladunka raxma innaka anta alwahhab allahuma aslix lana diinana alladi huwa ismatu amrina wa aslix lana dunyana allati fiha macaashuna wa aslix lana axiratana allati ilayha macaaduna wajcal alxayaata ziyaadatan lana fi kulli xayr walmawta raaxatan lana min kulli shar allahuma inna nacuudu bika min jahdi albala wa min daraki alshaqaa wa min suu'i alqada wa min shamaatati alacdaa allahuma inna nacuudu bika min alhammi walxazan والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين